waaw suñu maam la daal waaw suñu maam la ñu ñëpp. ban jàngat nga ñu mën a defal ci vie am étant champion retraité nekk fii euh, nit ñi di jël ci moom référence en tant que mbër. waaw man moom chaque jour rek leen laa jël suma muy diine l'islam ak Seydi Diamine waaw taxee ñun bu ñu xamee Seydi Diamine moom moo tax ñu xam Seydi jamin waaw moom moo tax du taxee di bàq Seydi jamin xol yëpp ay tooy xol yëpp ay féex di ko ñaar rek fu mu jëm waaw yàlla na suuf oyof euh, si kawam si barke yonent bi. Euh, ni mu génnee àddina coow li xawoon bari démb ñu ni ñu ni euh, moo tax ba mu génn àddina werante bi bari ci façon bi mu génnee àddina aussi ban jàngat ngay def waaw di ko di ñaan rek suuf oyof euh, si kawam ndaxte instant bi dëdd na ba pare doomu aadama bu dëddoo ñaan rek ñaan rek la yittewoo di ñaan yàlla na suuf oyof si kawam si barke werante bi. Mhm. alors Ada ginnaaw bañ la jàllee ki nga xam ne moom mooy suñu waajur bi maam góor. Mhm. daa ngeen gisante bu ngeen daan gisante yan kàddu lan la daan dénk. waaw moom saa bu mu ko gisee nag dafa may ñaanal. Mhm. mooy ñëw toog si tànk mu ñaanal ma. Mhm. moom ñëpp lay ñaanal. di kon di ñaan rek yàlla na si kawam moom ñëpp lay ñaanal. Mhm. mbër yëpp képp ku ñëw si ay tànkam da lay ñaanal. loolu moom dama koy seedal ñëpp lay ñaanal. moom damay dawal ba sama oto ba si buntu kër gi taxaw gaare wàcc si tànk mu ñaanal ma. war ma dem. bu da ngay dem ci moom mu conseil la la wala. waaw daf may ñaanal. Mm. ñaanal gi mooy conseil mooy lépp waaw mooy lépp waaw daf may ñaanal bàyyi ma dem te du ma mm. demee yàlla dafa may ndam. Mm-hmm. di ko ñaanal rek suñu borom yàlla ah, yàlla yàlla suuf oyof si kawam si barke yonent bi. lan ngeen mujj waxtaanee. ñaanal rek. Mm. moom ñaanal rek. saa ma wàccee bu ma gaaree sama oto dem naa mu ñaanal ma. Mm-hmm. naa ma soññu ma nag waaw soññu ma. Mm-hmm. kontaan nañ jaajëf merci. jaajëf wama baalu hada shawq wa shamlu jaamiun wa dal hablu mawsulun famal waslu yumnaw falaw sawaruni fi lxaqiqati lam yaraw siwa shaxsin mahbubin bihi natamattaw mabaa'isu Ibrahima